ci li nga xamante ne mooy les travaux de euh, waaw asalaamaaleykum man Pape Sène laa donc euh, man maa jiite parti bi ñuy wax sama ak Suqali Sénégal euh, bokkoon nag nekkoon candidat ci élection présidentielle yi léegi itam ma ñëwoon ci ñaari fan yi ci ndaje bi nga xamante ne moom moo fi amoon ngir daal ñu seet naka la ñu mën a fexee ba coow li fi am ci mbirum élection yi ñu mun ci ñu mun ci indi ay solution ba jàmm am ci réew mi. waaw loolu moo waral nag man ma daal di euh, d'accord ak sama parti ñoom ñu ne ma demal nga teew ndax fépp fu ñu wutee jàmm pour réewu Sénégal yow war nga faa mun a taxaw te wax dëgg yàlla loolu mooy sunu sunu sunu leitmotiv waaw loolu mooy sunu taxawaay ñun waa loolu moo tax nag ñu ñëwoon alors pour participer léegi man euh, démb dañoo def plénière waaye tey dañoo taxawal ay commission ma bokkoon nag ci commission bi nga xamante ne Euh, moom mooy seetu mbirum date bi date bi nga xamante ne moom la ñu war a ak itam euh, modalité yi nga xamante ne noonu la ñu war a organiser élection yi waaye léegi su ko defee bon bu ñu waxtaanee euh, dëgg la am nañu consensus parce que jàpp nañ date bi waaye itam décidé nañu ci naka la ñu organiser élection yi léegi nag li li li ma ci bëgg a doole rek mooy wax dëgg neex yàlla ni ñu tàmbalee liggéey bi ci suba dañoo waxoon nag nit ñi bindu jël parole bu ñu bindee jël parole di wax di wax di wax di wax di wax ba euh, trois heures jot ñu daal di jël pause après ñu ne ñu da ngeen dem ñu jël pause ba quatre heures ñu ngeen dellu siwaat ñu continuer ñu nag jàppoon nañu ne ñi nga xamante ne jotuñu woon wax bu ñu bu ñu dellu siwaatee ci pause bi ñu dinañ jël parole wax malheureusement bu ñu dellusee ci pose bi automatiquement dañoo daal di def synthèse rek daal di seet ñi nga xamante ne ñoo jot a wax ñu xool. ñu def ay proposition ñu seet fan la pour nit ñi gën a bare ñu daal di décider ne léegi nañu nañu nañu jël euh, li ñi gën a bari li ñu proposé nañ jàpp loolu man nag may wax ni wax dëgg neex yàlla waroon nañu fexe ba ñëpp wax rek waaw waroon nañu fexe ba ñi nga xamante ne bind woon nañu ñu joxe seen xalaat parce que jël seen xalaat aussi doon na am solo euh, même bu dee du loolu lañu ñu sax mais mu doon ay xalaat yoo xamante ne mën nañ ko jëriñoo ëllëg ci ni ñu mun a organiser élection ci Sénégal bi du am coow waaw mais loolu loolu rek mooy li nga xamante ne moom lay récuser malheureusement mënoon naa ñàkk nag mais bon euh, quand même on se félicite de, du résultat parce que tey jii nii euh, boo xoolee ci modalité yi euh, nee ñu ñi nga xamante ne dañoo xesoon ba qualifié nañ leen nañ leen nangul ñoom ñu continuer processus bi maanaam ñu continuer doon ay candidats te loolu xel mën na koo nangu muy 19 candidats yi. parce que aussi ne nit ki jàll nga ba pare ëlbateku ne ko da ngay recommencer ay à zéro dootoo euh, sa li nga jàlloon effacé nañ ko loolu day indi ay jafe-jafe waaw léegi itam ñi nga xamante ne dañoo jàppoon ni wax dëgg neex yàlla niñ leen bloqué doon na euh, blocage boo xamante ne xañ leen maanaam bañ a bokk boo xamante ne d'accorduñ si parce que bu ñoom nee nañu jaaduwul ndax am na ay rëq-rëq ay jafe-jafe yoo xamante ne jàpp nañ ne daal vraiment jaarul yoon ñooñu aussi permettre nañ leen pour que conseil constitutionnel jëlaat seen dossier xoolaat ko jàngaat ko ba nga xamante ne alors euh, dinañu bu ñu amee chance yàlla mun naa dogal euh, ñu bokk ci élec euh, ci candidat yi nga xamante ne dañu dem élection présidentielle. ndax conseil constitutionnel na ko cambaraat xoolaat seen dossier li ci li ci jagul woon ñu defar ko xoolaat ko objectivement ba ñoom ñu mun a mun a am chance. pour bokk ci élection yi. jërëjëf ñu ngi koy euh, gërëm di ko sant bu baax alors euh, Cheikh euh, Pathé alors dégg ngeen kaddu yi nga xamante ni ñoom ñoo fi jib li jëm